nemmeeku nañ fi li nga xamante nii tey mooy ay yàq-yàqu ay biis oto ay station yi taal wala ay boutique de grande distribution yi nga xam te tey saccagé nañ ko ci li ma foog ci entreprise yooyu noonu ay sénégalais ñoo fay liggéey te tey ñi ngi wax ne Sénégal tey président de la république war na mun a jublu ci xëy ndaw ñi je tey loolu war nañu mun a permettre tey ñu amaat beneen taxawaay beneen taxawaay bi nga xam te ne mooy li nga xam te ne sénégalais ñoo ko bokk ñëpp àndandoo sàmm ko parce que xam na ne du Macky Sall ko moom du Sonko ko moom du du du man maa ko moom donc ñun ñëpp ñoo ko bokk donc ñun ñëpp ñoo ci war a veiller parce que tey ñi ki nga xam ne day xëy soxla na tey bi dugub biis dem xëy am maanaam xëy ci xëy ci ba muy teel waaye tamit ñi nga xam te ne ñoom ñooy liggéey tey di daan seen doole di am lu ñu dundee tey yóbbul seen njaboot je crois que tay war nañ leen mëna samal li nga xamantene moy sen moy sen seen liggéey waaye di wo nguur gi ci li nga xamantene tay moy manifestation wala marche yi nga xamne tay mom moom am ñu ñu encadrer marche yi joxe ñi kiy bëgg ñaxtu aussi tam ñaxtu ci jamm war nañ ci mëna am benen taxaway taxaway bi moy euh, manam taxaway de civisme taxaway taxaway de patriotisme taxaway taxaway ndëgër lay un bon citoyen un bon citoyen waaw loolu moo nekkoon sababu ndaje bi tey te ñu ngi ciy woo nag kuréelu ñi nga xamante ne tey ñu ngi nekk ci biir réew mi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bitim réew ñu jàppale ñu ci xeex bi ba nga xamante ne Sénégal tey dinañ ko mën a citer ci pays yi nga xamante ne tey ñoo gën a stable gën a dal donte am nañ jàmm sax waaye jàmm moom du doy.